daleen ak jàmm xibaar yi ci yaatal ci njàng mi la ñu koy tàmbalee ca diwaanu Sédhiou kuréelu syndicat bu ñu fay wax seen sa jiite nag inspecteurs yi amal nañu fa ab tukkib nemmeeku ñu tolof tolof yu bari jàngalekat yi ak inspecteur ñu ngi koy jànkonteel waaye lu jëm ci seen i payoor ba ci ndàmpaay yi nguur gi mu ngi ci wërwërloo ak ñoom bala ñu ko fayeeku rek mu biir àdduna sonn nañ ci tàyyi nañ ci Alcantara Sarr mooy secteur général ba Souli Brahima Dabo la fa seqaloon waxtaan bi tamit respecté ay engagement ci suivi protocole d'accord bi engagement bi ci gën a fës moom mooy maanaam payoor ak ndàmpaay bi nga xam ne ni moom la ñu war a jox inspecteurs yi nga xam ne ñoo ngang système bi ndax bu ci seetloo ci yeneen euh, domaine d'activité yeneen secteur seen suñuy naatangoo yi nga xam ne ñoom la ñuy wooyee corps de contrôle maanaam gis nañ ne seen i payoor ak seen i ndàmpaay euh, nu mu tëddee uute na ak sunu bos ñu nu mu tëddee nguur gi ci boppam d'accord na ne ba mu xoolee nu payoor yi ak ndàmpaay yi ne kat am na liggéey jéego bu rëy buñ ci war a def ngir jubbanti li nga xam ne dafa dëng loolu nag mi ko bëgg a def ci lu ñuy wax étude sur le système de rémunération ñi nga xaar conclusion étude yàgg na lool bu nañ bu ñu tey ñu ñëw tey ñu ne suba donc nguur gi na gaaw liggéey bi pare na mu jublu ci li nga xam ne ni moom mooy jubbanti li nga xam ne dafa dëgg ndax yaakaar nañu réew bu bëggee jëm ci kanam day tëdd tëddaayu njaaxaan day tëdd njaaxaanaay day fexe ba nga xam ne ni doxalin bi dox doon doxalin bu mucc ayib boo xam ne ci wàllu éthique ci wàllu moral mun nañ ko accepter waaye ci wàllu woo dafa am ay problème poyawru inspecteur bi nu mu war a mel melul noonu ndàmpaayam nu mu war a mel melul noonu indemnité de logement bi nga xam ne ni moom la tollalee ak enseignant bi nga xam ne mooy doog a commencé liggéeyam waxuñu ko pour leneen parce que ñun ay enseignant lañu waaye gis nañ ne daal kenn ku ci nekk lu mu war a am dañ ko ko war a jox ci wàllu xibaar ñu des ba tey ci wàllu njàng bi yoon nag diina lañuy wax ca diwaanu Louga ndax sëriñu daara la moom sëriñ Fall yëkkati ay kàddoom ni fekk nguur gi joxul gëdd njàngum daara di leen taxawu jafe-jafe yi ñu am ci wàllu accident yi ak lii di euh, agression yi maanaam defkatu ñaawteef yi du noppi ndax yar mooy sooxe ci reportage yu Omar Kéré ci diwaanu Louga. njàngum alxuraan mi wekk ga ko nguur gi waroon a wekk dafa des mu di gis-gisu kii di Serigne Papa Fall Marabu. taa nag li li koy li koy wax mën naa wax li ma jàpp ne moo ko yàqal mooy nit ñi nga xam ne dañuy fésal seen bopp di nëbbu état ndax dangay dem ci bërëb bëgg licence su jàng daara alxuraan wala nga bëgg benn benn mbir ci état loo xam ne si yow mu jàng alxuraan ñu la koy jafeel. te ki nga xam ne mooy jàng nasaraan bu dikkee ñu yombal koko ko wala ki nga xam ne dafa bëgg kartu jaay boppam bu dikkee tamit ñoom dañ ko koy yombalal lool. te yow yaakaar naa ne ki nga xam ne day jaay boppam jàngoro ji muy def ci réew mi loolu yow état yaa ko waroon a xeex. ki nga xam ne si ne moom day faj ay jàngoro yow nga di ko xeex yow état loolu laa foog ne nag man mooy yàq Sénégal ba Sénégal lu bare bëri di di am ay gàllankoor. moom mi nga xam ne nag mi ngi doon àddu ci bés bi nga xam ne moom nañu jagleeloon wàllum tarim alxuraan ci ndorom li mu bëgg moo di ñu jox alxuraan palaasam ndax gis na ne réew mi mënta jëm ci kanam bu ñu ko bàyyee ginnaaw rawatina nag ci jamono joo xamante ni wàllum accident ak violence bi dafa gën a bari lool. moo ko indil jafe-jafe yi koy dal saa su ne ndax boo xoolee li koy indil jafe-jafe muy kaso yi li koy feesal boo xoolee ñu jàngul alxuraan ñoo fay nekk boo xoolee ñi defoon sog yi ak ñi nga xam ne si ne ñooy agresseur doomu aadama yi ku jàng alxuraan alxuraan nekk sa dënn da nga yéene ab jullit leneen lu bokkut ak tiim ko di ko jëm paaka wala nga jël yor oto lu tolloog nangami nit nef ci nga topp sa bakkan di di di di daw nam la neexee ba tax maanaam nga def aw jëye woo xam ne si ne lu mu gàtt-gàtt nit ñàkk ca bakkanam wala nit ñàkk ca cëram Oumar wal fa Walfadjri Omar Kéré dañuy dellu si Ndakaaru junjoon nañu ko tey ji la tey waaye Y'en a marre di woote nag ca place de l'Obélisque ni benn million ci doomi aadama ñu nga leen fay xaar waaye ñu ngi xaar karange gu matale ci ji wàllu li ko yor ndax bëgguñu kenn ko potoxlu ca seenum ndaje di ca indi benn jeexe jaaxa Fadel Baro démb lañ doon dajeek taskatu xibaar ci marax gannaaw bu leen préfet bu Ndakaaru bàyyee ñu amal seen taxawaay ñaxtu boobee ñu ànd teewlu ko ak Ramatulaay Diouf manifestation bi ñu daroon def suba finalement préfet bi Dakar ko Euh, donc li des mooy wax sénégalais yi ne leen ñëpp mun nañu ñëw ñu génn ci jàmm ak dal ñu ñëw dajee fële ci place de l'Obélisque dajee place de l'Obélisque ginnaaw bu ñu jógee àjjuma pour artu am nañu droit ci sant en tant que citoyen sénégalais ñu artu suñu njiitu réew artu ko ci jafe-jafe yi nga xam ne mi ngi fiy am tel que ci yoon tel que ci gerte gi nga xam ne ba léegi am na ay baykat yu am ay bon bons impayés tel que ci yenn dépense budgétivores yi comme yu mel ni ay ay usines de dessalement wala ay TER ah tel ko ci génération yi ñu nekk leen jël utal ay bor yoo xam ne duñ xam sax nan lañ koy fayee mais aussi ci yeneen jafe-jafe yi nga xam ne lié aux libertés d'expression comme manifestation yu bëri yi fii am ñu di ko aaye ay jafe-jafe yu bëri mais ñu ne nañ ko def ci dal ak jàmm def ko ci dal ak jàmm ci lu weesu amoon nañ fi ay manifestation ci ay contexte ay jamono yu gënoon a jafe et pourtant dañ doon wane ne ay nit yu yem lañ ay nit yu dal lañ ay nit ñu serein lañu nañu waat loolu mooy ñun nag mooy ñun waa Sénégal yëpp ñu woote ci jàmm ñëw ci jàmm dellu ci jàmm ñëpp ñëw heure na 15 heures pile ñu commencé bu 6 heures jotee ñëpp tasaaroo dellu seen kër ci jàmm loolu nag ku ñu ci mun a dimbal yëg nañ ne am na ay ñoo xam ne nëbbatuwuñu sax ne nañ dañ bëgg a ñëw saboté ko dañu bëgg a fexe ba euh, mu am ay jafe-jafe mu am ay violence bu ko defee ñu ne waa yaanaamaar ñoom ñoo xamadi waa yaanaamaar ñoom ñoo bëgg a indi taal fitna ci réew mi fitna taxuñu jóg moo tax ñu ne ministre de l'intérieur ak police ak gendarmerie ñoom nañ jël seen matuwaay yu doy ba nga xam ne képp ku fu bëgg a saboté danañ la identifier ñu bu ko defee yoon dal ci sa kaw nañu fexe ba nit ñi ñëw ci jàmm dañu bëgg a artu suñu njiitu réew na sénégal yi ñëw ñu artondoor ak ñoom ci jàmm ak dal ñëpp solo ay t-shirt ñuul waaye ñëpp indi seen drapeau vert jaune rouge ndax Sénégal kese moom moo fort amul drapeau parti politique amul drapeau mouvement de soutien de ñun sax duñu sol t-shirt Y'en na ñëpp indi drapeau Sénégal ak t-shirt yu ñuul ñu artu suñu njiiti réew pour suñu démocratie gën a taxaw suñu démocratie gën a dëgër bu ne nag démocratie ci réew ña ko ŋànk réew ma la ñuy njëkk a xool buñ paree ñu xool citoyens yi citoyens sénégalais yi wane nañ seen wàll ne autorité yi wane seen wàll ñu def suñu manifestation bi ci jàmm taxawaayu politique ñu amaloon ko ca diwaanu Sagata muy nag ndey Guèye Cissé di responsable jiite soxna ya ca diwaan ba moom amaloon na manifester nee nag lu jëm ci wàllu watey njiitu réew yi ñu watey njiitu réew mi 2019 ñu jël ko ci ki fi nekk jamono ji waaye nag laata loolu ci législatif yaat ñu fëj seene wujjeek moom ba mu saf sàpp ca penc ndaw réew ma maanaam li raw ci député yi ñoom ku jegi ñu jël ko bu ñu ca tegee di woo ñëpp ngir nag ñu topp ci kàddu yi nga xam ne maître Abdoulaye Wade mi fi nekkoon njiitu réew woote na ko ni opposition bi dañu am benn commune ñu mën a sot soto Macky Sall njiitu réew meek ñi mu àndal Omar Kayre ci reportage. maître Wade di woo opposition bi ngir ñu àndandoo dem ci élection législative yi di ñëw mu di woote boo xamante ni Ndeye Gaye Cissé da koy rafetlu moom mi jiite jigéeni PDS yi nekk ci région wu Louga jàpp ne jot na sax ñu tekk ay jéego ngir mën a jëli nguur gi ci loxoy Macky Sall. Ablaye Wade joxe na ndigal pour ñu xool nan la ñuy ànd ci biir. parti yëpp ña mën a ànd ànd laa ñu wax ah koo mënul ànd doo ànd moom waaye daal li ñu bëgg mooy Macky Sall législative yii di ñëw nañ ko dóor ba mu tëdd jël majorité assemblée nationale imposer ko cohabitation pour ensuite lui montrer la porte de sortie en 2019. moom mii fi nekkoon député te doon amal ab rassemblement ci fiefam bi di Sagata dellu si waat na ci dàq gën a dàq Farba Senghor ak Pape Samba Mboup ci biir PDS mu di ndogal boo xamante ni moom ànd na ci di xamle na ñoom duñu nangu benn désordre ak indiscipline ci seen parti. Ablaye Wade yoratule mairie Ablaye Wade mayetuli kër am na ñoo xam ne nag ndeysaan da a yàqoon a yàq ba léegi bu ñu toogee ñaari fan amuñu xaalis dañuy dañuy dañuy saalit. ñoo ñooñu jënd nañ leen walla def nañ njaaxum ci réew mi boo xam ne ne buñ nee pip ñu leen mbal la ci kafe gi ndax Macky Sall tëj na ñeent fukki nit ak juróom benn ci waa parti démocratique Sénégal te pareegul. ci lu soxal nag kaaw Aïda Mbodj mi ñeen ñi jàpp ne moo ciy topp Ndeye Guèye Cissé moom li mu gis moo di lépp mu ngi dépendre ci camarade de parti mbile. mu ngi dox doxam parti baa ngi ni teg fekk parti baa ngi ni teg kanam li ma gëm mooy nañu xool ba xam fu jëm ak moom. bis bu demee ba nga xam ne nii nag xëy na fa mu jëm dëppoowul ak la parti bi bëgg bu boobaa ñun danañ wax fa ñu war a waxee bu boobaa ah ay de suñu nawle la nag jàmbaar la politique la waaye nag am na loo xam ne eggagunu fa eggagunu foo xamante ne sunu parti nit day décider ni lii lañ may defal wala lii laa bëgg ñun danoo mas a nekk ci discipline àndandoo li nu gënal nag mooy li mu yor li mu xam li mu mën mu toog ci wetu baayam bi nga xam ne foo mu wax ne moom mooy baayam mu toog ci wetam ñu waxtaan àndandoo liggéey gagné législative bi fal suñu rakk Karim Meïssa Wade loolu de la bëgg ci moom. jiite jigéeni libéral yi nekk ci région wu Louga nekk ki ngànk PDS fii ci Sagata Ndeye Gueye Cissé ci jamono ji nga xam ne mi ngi doon amal rassemblement boobu àdduna tamit jëm ci cinq ans Macky Sall yi nga xam ne moom la def ci nguur gi mu jàpp ne échec la. feeñ nag ba ci arrondissement wam boobu di Sagata bi mu gis ne ci diir bi fi Macky ñëwee ba léegi kenn defalu ko dara Omar Kayre Louga Walfadjri Omar Kayre fédération bu taxaw ngir nag fësal njàngalem Serigne Touba ne am na ñetti fan yu ñu koy waajal fukki fan ak juróom-ñeent ñaar fukki fan ñaar fukki fan ak benn ci weeru mai bale ñu dëgmal ñu fas yéene cee boole jullit yëpp doon na daje démb ak taskatu xibaar yi waaye nee nañ buñ ca jógee lu jëm ci wàllu njàngum ne dañ ci gën a taxaw ñu teew lu ci sëñ Ousmane Mbacké ak suñu natango Ramatoulaye Diouf. ci ndigalam. ci Serigne Cheikh Sidi Makhtar. ci kilifteefu sëriñ Ahmadou Makhtar Mbacke xalif xalifu Cheikh Mouhamadou Moustapha ñi ngi fa yéene waxtaan ak bokki jullit yi ak bokki Sénégal gépp ci bis bu ñu tuddee journée culturelle islamique la vision de Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaïndé Fatma perpétuée par Serigne Mbacke Soxna Lo son premier calife maanaam muy bis boo xam ne dañ ci jàng bisub lislaam la ñu ci jàng jàngale njàngam sëriñ Cheikh ci lislaam moo xam ne sëriñ Mbàkke moo ko gàddoon ànd ko ak mbokki taalib yi ak mbokki jépp yëpp fas ko yéene amal euh, le 19 et le 20 allah ci ndakaaru gi bis la boo xam ne fas nañ yéene ku ca ñëw li fédération bi daloon na liggéey jëm ba ba fi ba ko ba fi Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke mi ko taxawaloon nekkee ba léegi Serigne Mbacke jaar fi ba ci sunu kilifa yi ko yor tey lépp lu ñu fi réalisé da ngeen ko xam incha allah lépp lu ñu fi nam ma réalisé waat ci ci lu jëm ci sunu kanam da ngeen ko xam mu mel ni njariñ la wu jëm ci askan wépp Sénégal gépp waaye rawatina bokki julli ci xibaar xibaari bitim réew fa ñu koy tàmbalee ca Gambie la mu soxal nag législative yi nga xam ni ca penc ndaw réew ma ki fa nekk jamono ji njiitu réew di Adama Barrow partem ba mu yoroon laataa moo ñëw ca nguur ga moo jëlagul raw gàddu gi xadi colonel Guèye ci àndal jihadiste yu Boko Haram daal di nañuy tàll ab base militaire ca bët gànnaar bu réewub Nigéria alxames bu ayu bés bi ñu ne ginnaaw bu ñu amalee ab cong jëmale ko ci ay sàmmkat daal di faat ci ñoom lu tolloog juróom-ñaar yi ne defkatu ñawteef nag ñu jàpp ni ci faction bu Boko Haram bi nga xamante ne Mossab al-Barnawi moom moo ko jiite la ñu bokk bokk itam ci ñu jege lool waa état islamique daal di amal boobee cong ca base militaire bi ne ca village bu Wajirko lu tolloog juróom fukk ak juróom benn missile yu jóge ci navire américain yi ñoom la ñu dóor fële ca base aérienne ba ne ca Al-Shayrat féetee ca diwaanu Homs li le nag di guléet ci xeex ba nga xamante ne mu nga am ca réewum Russie boobaak léegi juróom benni at États-Unis daal di jiite boobe opération massive bi nga xamante ne mu ngi ko jëmale woon ca kaw armée syrienne bi ca loolee ñu ñuy xamal ni lu tolloog juróom ñeenti civil jot nañ caa ñàkk seen bakkan ñeent yi sax di ay tut tànk ginnaaw frappe américain yi nga xamante ne moom moo amoon ci guddi alxames gi jàpp aljuma ji jëmoon ca kaw base ci base aérienne bu armée syrienne bi réaction internationale yi ñu ngi gën di bari bu Iran ak Russie di ñaawlu bu baax jëf ji li nga xamante ne moom la Washington jël ñi farandoo ak États-Unis ñoom di leen ci tàcc bu baax rax ci dolli di leen gën a firndeel seen jàppale ci bile initiative laata ñoo jàll ci tàggat yaram ci xibaar bitim réew yi ci réew Gàmbi dinañ ci ñëwaat ak watey penc ndaw réew ma ñu doon amal niki démb te Adama Barrow ma nekk njiit la moo jëlagun raw gàddu gi ak xadi colonel Guèye ci yeneen xibaar ñu jàll nag ci tàggat yaram tàmbalee ko ak 17e journée bi nga xam ni moo soxal Ligue 1 bi suba ci samedi ji programme bi nii la tëddee ca Déni Biram Ndaw ca Tëngéej ca stade boobee génération foot moo fay dalal Mbour waa Petite Côte bu dee ci Ndakaaru ba tey Demba Diop waa ñaari tali waa Linguère ci stade Amadou Barry bu Guédiawaye ñii di waa Tëngéej FC ñoom US Ouakam la ñu fay dalal beneen jongante wala yeneen jongante ñuy xaar suba ci dimanche ji ca Louga Njàmbur moom dina fa dalal jaraaf mi bàyyi ko fii ci Ndakaaru fekk ko fa waaye te bu dee stade Caroline Faye waa stade de Mbour dinañu fa xaar waa Casa Sport bu Casamance noonu la jàllee ci beneen ponk bi des ca waa Casamance bi yoon mu soxal nag waa handball jigéen ñi ñoo fa doon amal ab tournoi tournoi boobu nag première édition dëkk yi nga xam ni mooy Tambacounda ak Kolda ba ci Sédhiou ak Kédougou ñoo fa doon jongante ñaari équipe ko mujjee jël mbokk na ci région bu Kolda ak Sédhiou ñoo jël raw gàddu ga Soli Burama Daabu moo ñu fa nekkal. Touba Gassama handball dama première édition te mu regroupé xale jigéen yi bàyyi ko fale ca région Tambacounda Kolda ak it Sédhiou ni ki démb lañu joué final bi équipe régionale bu Sédhiou bu ki bu jóge ne xarañ moo daje bu Kolda dóor ko dóor bu leer. 15 buts contre 7 Abou Sidibé mii di coordonnateur régional handball fii ci région Kédougou muy koy rafet lu bu baax a baax na esprit de fair play rax si engagement ñeenti équipe yi nga xamante ne daal malgré chaleur bi nag teewoon nañu. mbégte la ñu am mbégte la ñu am dajale fii ay équipe yoo xam ne ñoo dëkk ñoo bokk ci euh, sud du Sénégal Ziguinchor waroon na ñëw ñëwul. Sédhiou ñëw na bëgg a def mu nekk tournoi bu Kédougou boo ne bii chaque année dañ ko war mën def ñu tuddee ko mu nekk suñu tournoi bopp. ñu pour wane kii waa Kédougou gis ni dañuy jouer handball handball sport la comme football la comme yeneen mën nañ ko jouer donc moo tax ñu woote ñu ñëw waa dëkk bi gis ni ñu ngi jouer parce que au fait yàgg na jouer wuñu fi handball depuis tripartite di jeex donc euh, il fallait que ñu euh, góorgóorlu woo ñeneen ñi xam ne dëkk bi xam ni handball compétition la boo xam ne bii dañ ko war a respecté ñi di koy def am ci fulla nag. bi ñu fi ñëwee bi ñu leen jëkkee gis ñu commencé sànni bal lañ xam ni ñii am na loolu nekk si ñoom. alhamdulilah euh, mu wane na ko aussi ñoom ñoo ñoom nekk final kontaan ci ñoom xam ni liggéey rek ay dëgg. ci wàllu équipe am bi nga xamante ne daal moo jël ñetti place ak bu ne daal ñàkkuma entraînement bu jaar yoon boole ci manque d'infrastructure sportive moo leen sonal. wax la liggéey mooy dëgg ñun ñi xam naa ni compétition la. il faut mu am ku gagné kuñ gagné ñun yàlla def na tey dañoo gagné buñ bëggee gagné dañuy liggéey pour gagné ñi ñu gagné woon. Kédougou Souley Birama Dabo Sol Ibrahima Awa bu ñu jógee bët gànnaar